aosbillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala wa asaabihi wa sallama taslima cheikh bi laaj nga ma góor goo xam ne gu mag la góoru yàlla gu mag gu yiw bu baax koo xam ne dundam man bokk naa si ñi nga xam ne dundam daf daf leen marqué lool ndax góor la goo xam ne ndeysaan foo ko fekk rek mu ngi jàng alquran alquran moom dafa dëkkaaloon ak moom ak lu mu jàng-jàng alquran su waxtu julli jotee mu teg jukki ba dem julli ji su ñëwee continuer ak njàngam bu fekkee waxtu tàkkusaan la mu def wirdaam ba pare continuer haat ak njàngam te amutoon ci njàng rek waaye tam ku ñemewoon liggéey la moom góor googu dafa daan liggéey yar ci njabootam ñu ñeme liggéey amut ci loolu lu muy liggéey du war sax ba ca ci yàlla la jox da ko daan bokk ak jaam yi da ci dimbale jaami yàlla yi kamtalaayu kàttanam kon daal loolu moom bokkoon na ci li ma marqué ci góor gi suma relation ak góor gi daanaka su gunu yi la dajee la la commencé muy Mouhamadou Mountakha Sakho doom la ak Ousmane Sakho yàlla dafa nekkoo yàlla dafa dogaloon ma nekk seen wi da jàngale xam-xam ay xaleem ñëw fa bi ñëwee yàlla boole maa ak ñoom may jàngal xale yi benn bis ma jóge ko Saalum ñëw fi maa ngi nekkoon géejawaay jamono boobu ma ànd ak suma benn xarit nag ñi dem euh, Zandaga bañ demee Muntaxa mi laa fa dajet mun nañu laxante ma ak góor gi foofu laa gisante moom foofu laa njëkk xamante ak moom xamante gi nag doo continuer ba benn bis mu ne dafa soxla ku ko jàngaleel ci njabootam gi daal di ma wax ma ne sax ne su ma mënoon a am ku mel ne yow de moom a gënal fekk en même temps man nit maa ngi soxloon fu ma jàngalee góor gi ne ma kon léegi fi xel nga ñëw ci kër ga loolu daal en làq bi nag foofu la commencé rahimahullah gannaaw bu góor gi dëddoo ba léegi na ma meloon ak njaboot gi teel a gën a raw jëflanteeg njaboot gi si ci jàmm ju mat sëkk jàmm jañ seqoon ju ko raw moom lañ seq ama frontière si benn njabootam ku mu ci dajee rek ubbil nga ma sa kanam ñu def suñuy waxtaan pare soog a dem loolu nag moom moo ko yore woon njabootam ndax moom ku ñemewoon nit la ku bëggoon nit la ku xamoon it li ñuy wax mu daara daa mu daarante lool ak nit ñi euh, message message bi may lancé ndaw yi ak ñëpp sax mën nañu jël moom ay message bi su njëkk mooy dëggu ku dëggu la woon te it bu jàppee mbir daf ko jàpp rek du ko gaaw a bàyyi gannaaw mbir mu nekkoon lu baax moom xawma sax si moom mbir mu ban moo jàpp kon ku dëggu la woon waaye itam ku bari woon yërmande ci nit la boo ñëwaan wax soxlaam daa ji karab gi nu fecce koo daal di ubbeekul demelax da da leer nañ ndeg bari yërmandeem wante it ku ñemewoon jaboot la waaye ku ragaloon ku ragaloon fitna la ndax ñaare koo gis ñaare ñu ne dafa ubbeeku dafa bëgg njaboot day ragal fitna loolu daal moo naa ko sànni ci góor gi lu ma leen dénk rek mooy ñu gën a góorgóorlu xam ne dañ commencé bees ndax ñoom lépp lépp luñ mel rek nu ñu mënta mel rek seen papa la ñoom balaa ñoo xam ñooy kan ëllëg seen njaboot màgg bañ xam seen njaboot ëllëg nu mel kon daal góor gu tedd googu ñu ngi koy ñaanal yàlla dëkkale ko sa àjjana yu gën a kawe mu dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa ak i saabaam te rafet na ci njort lool wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.